Macky Sall def na benn déclaration bu garaaw ca France 24 la ko defee. nee na. waaw. Karim Wade. Sénégalais la. waaw il est libre de rentrer dans son pays. waaye nag libreul ci circulation di ko ne maanaam di ko def lu ko di def ko neex nii. bu toogaa tey fii euh, toog boo xam ne <laughs> li mu war a fay da ko war a fay de. sinon rek moom ca kaso ba la jëm. te bu ko naree bàyyi day fekk bu pare ci deuxième mandat Macky Sall loolu wax de France la ko waxee. ñu seeti Macky Sall mbiye sall so hale jaɓo lobtoro ari mbiye sall so hale jaɓo lobtoro ari e ari jërëjëf jërëjëf yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu cool nag commencé na jolo ci biir réew mi li ko waral mooy ñaar la bu njëkk bi mooy sénégalais yi dañuy xaar su ma génnee wax te li may wax sama réew ak bitim réew laay yemale. dëgg la. tubaab yi bi ñu ma laajee. tontu naa leen. tontu boobu nag bu fekkee ne Sénégal njaay ñëpp dañ ko jàppee tontu boo xam ne dafa tegu ci li nga xam ne moom laay doxalee sama réew. kon ku ci mere yaa ngi may tooñ parce que li réew di doxee rek noonu laa demee. li ko waral mooy. Karim Wade dafa def naka sudul noonu. te boo defee naka sudul noonu ci yoon. juridiction dafay laaj ay atte. loi ak ay décret yoo xam ne moo lal loi bi boo defee naka sudul noonu jël li nga xam ne mooy alal réew mi safaañoo ko jalgati ko ba ñu la ràpp ci kaso bi si ndimbalu yàlla ak man ma daan di koy baal pour mu dem na tekk na te na na sow bu ñu wayal mu dem ba Qatar di wax ci ay whatsapp nan day ñëw yëngal dëkk bi loolu du ko seetaan tey duma ko seetaan ëllëg parce que la ma waxante moom lu leer la nee naa ko comme que yow da nga nekk ci kaso bi te yoon moo la teg yoon ñu ngi may ñaan pour ma teggi loolu danaa la ko teggil mais ci kaw nga nappi te ànd ak yar te génn ci réew mi yëpp bu ñu yàqal suñu liggéey ndax doo fi nekk di safañoo liggéey bi man damay liggéey sama mandat dama koy eggale ba mu jeex tàkk waa mais Macky Sall président la Sénégalais la Karim Wade Sénégalais la mais alalu réew mi nga xam ne daf ca teg loxoom def lu ko neex nit ñi ñaan ma ma bàyyi ko mu dem ba Qatar di yëngal di yëngal gësam bëgg a yëngal sama gouvernement duma ko nangul tey duma ko nangu ëllëg Sénégal la nag bu ko neexee mu ñibbisi waaye nag boo ñibbisee nag ci réew mi te réew mi di la topp ci loo xam na xaalis boo xam ne da nga ko jël duñ la bàyyi nga toog di def loolu neex duñ la fi bàyyi ngay ngay animer ay déstabilisation Sénégal te loolu duma ko nangu tey parce que tamit il faut ñu xam ne ne réew dafa am nu muy doxalee ku ma ci mere nag yaa ngi may mere ci erreur parce que tamit na nañu waxante dëgg te yàlla tax xaalis bi du sama xaalis xaalis sénégalais la xaalis njaayeen la joobeen yi faaleen yi mbengeen yi jaañeen yi ñu sant Soumaré ñu sant Keita Kouyaté ñëpp ñoo ko moom mais pour pourquoi Karim Wade ñëw ne day troubler Sénégal du ma ko nangu tey ñaar ñoo am baal bi mun na am de ci kaw ma gagné deuxième mandat toog fi ma xool na war dëgg wax dëgg yàlla war naa ko mën a baal ma baal ko moo Khalifa Sall mais fu mu ne nii man xalaatuma baal kenn bu fi tegee tànkam bu day jaay xonkam day jaay xonko jaxate na ñëw bu fi tegee tànkam fii dina xam ne lépp lëna lënam ci moom du ko baal benn yotaa laa wax parce que am na ñoo xam ne seen tànk mooy jéem a yàq réew mi te du ko nangu tey du ko nangu ëllëg mais kan mooy Karim Wade jël suñu xaalis dem ma baal la pour nga dem nekk daal la calme ngay yëngal ay réseaux sociaux du fi am tay du fi am ëllëg ku ma ci mere nag yaa ngi may mere ci loo xam ne du yoon parce que bi may laaj réew mi dama leen wax ne carrément dëkk bi dëkk justice lay doon waaw waaw indépendance de justice mais am a jël sama décision nit ñi commencé wax waaw warul wax li warul wax li li ma wax dafa am fu ma ko teg te réew dañ koy jubanti kenn du ko jàddal maa ngi bàyyi ba mu ñëw nee na day ñëw papam nee na day ñëw ak moom nañu ñëw bu ñooy ànd ak papam li nga xam ne moom la ma yoon may loolu laay dem ba mu jot takk du ma ko duñu ko nangu ñoo bañ duñu ko nangu ñoo bañ duñu ko nangu ñoo bañ duñu ko nangu waaye duñu ko nangu ñoo bañ ñoo bañ ñoo bañ c'est vrai ñoo bañ duñu ko nangu duñu ko nangu duñu ko nangu doo leen ko nangu duñu ko nangu duñu ko nangu doo leen ko nangu mais mooy kan mais duñu ko nangu mais mooy kan mais duñu ko nangu mais mooy kan mais kuy Karim waaye loolu Karim mais kan mooy Karim mais du ma ko nangu waaye kuy Karim waaye du ma ko nangu waaye maa bañ eh bu leen ko nangu eh du ma ko nangu Sénégal yi bañ eh, réew mi bañ eh doo fi nangu eh doo fi ñëwee duñu ko nangu eh, duñu ko nangu.